jërë ngeen jëf mbokki internet yi dontele sax carte blanche lañ ko jox ngir naka mu tànn ana kan mooy jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yi 2024 gannaaw ba moom mi ne jàkkaarloo na ak askanu Sénégal ne kàdduum lay sàmm na ma ko waxee woon rek Euh, deux mille dix neuf bi ñu ko falaatee mu nekk ñaar lu mandat mooy ba mbujj euh, deux mille vingt quatre nag du nekk candidat moom président Macky Sall nag euh, dina jafe lool ci moom pain sur la table la daal di am. gannaaw sax bu ñu weesoo tudd yi nga xam ne ñu ngi koy daal di avancé di ko tudd muy ñëw bari lool ci ana moo koy wuti ci bopp Benno Bokk Yaakaar ngir nekk seen candidat ci élection yooyu Amadou Ba premier ministre bokk ci Abdoulaye Daouda Diallo bi nekk ci conseil économique social et environnemental Mahammed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye Félix Abdoulaye Antoine Diome ministre de l'intérieur ñi nga xam ne nag ñi ngi manœuvrer pour remplacer kii di njiitu réew Sall am na nag yeneen prétendant yoo xam ne daat ñu ngi leen cay tudd wala sax seen candidature daal ñu ngi koy xayma ñu nekk candidat wu beige marron bi la ci présidentielle 2024 bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xam ne moo di tribune ba tey moom président Macky Sall nag nga xam ne moo war a proposer benn candidat pour coalition benn Bokk Yaakaar daal daal dinay eh, nekk liggéey bu nar a métti ci moom bu fekkee nag li nga xam ne ñoom am intention wala sax ñu manifester seen intention ci kawam Euh, xaw nañu bëri ba yegg ci lool euh, liggéey la nag ngir mu désigner candidat consensuel bu mouvement présidentiel euh, moom njiitu réew Macky Sall d'autant plus nag mu nekk liggéey bu métti métti gi nga xamee ne rek dafa xaw a bëri lool ci ñi nga xamante ni ñooy nekk ci majorité bi ay responsable yoo xam ne nag ñi ngi manœuvrer pour porter le drapeau bu Benno ci prochaine compétition présidentielle yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci vingt cinq février deux mille vingt quatre ci Sénégal. Déjà nag il est de notoriété publique Abdoulaye Daouda Diallo ci-devant euh, président du conseil économique social et environnemental ak ki nga xam ne moo di euh, premier ministre Amadou Ba euh, ñoom nag ils ne se font pas donc ki nga xam ne nag mooy maire bu Bodi wala Bokki Diawé ne nag pour rien au monde du accepter soutenir li nga xam ne moo di candidature bu Amadou Ba loole journal bi di Tribune mën na koy xamal ba tey euh, journal bi wax rek ne ci ay manœuvre am daat jëm ci direction présidentielle bi moom Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi tàllal loxo ki nga xam ne mooy Arouna Dia mi nga xam ne nag euh, daal crash wut benn yoon euh, moom tamit ci la candidature Eh, adversité bi am nag eh, au sein de Benno Bokk Yaakaar diggante Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba ñaar ñi nga xam ne eh, bëri na liñ leen di tudd lool jëm ci seenub candidature maanaam bi nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle vingt 2024 loole nag ba jamono jile nekk na benn contenu bu nga xam ne moom Macky Sall daal dana jafe ci moom risque nag d'être ravié au point d'atteindre la haute administration Euh, des finance où chaque a eu le temps di placer ses hommes. guerre ouverte entre Amadou Ba ak ki nga xam ne nag mooy Abdoulaye Daouda Diallo ca seen côté ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne moom it euh, ba tey euh, mu ngi bokk ci ñi nga xam ne rek ñu ngi tisser sa toile pour succéder ki nga xam ne moo di président Macky Sall si objectif am yi nag moom soutenir la wala sax bëri na ñu ko ci soutenir di ay responsable yu Benno Bokk Yaakaar bokk na ca Cheikh Mbacké seen ak ay ministre euh, yi nga xam ne nag euh, ñoom daal ak euh, moom daanaka seen jege neex na lool déggoon nañu ci ay kàddu Aly Ngouille Ndiaye aussi également à l'affût pour nag le moment venu moom nag daal jàppaleen leen ne se lancer dans la course à la présidentielle moom tamit bokk na ci ay yéeneem bu fekkee nag ci élection yi au niveau du camp présidentiel am na ay responsable yu activé wu pour euh, nag ñu tànn leen ñu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar ñeneen ñoom sax pare nañ ngir compétir euh, euh, ñi ngir compétir ci seen propre bannière maanaam daal suñu nekkul ku njiitu réew mi tànn tamit ñoom pare nañ ngir dem dabu seenu sens ñu ngi xaar ki nga xam ne moo di Macky Sall dévoilé euh, li nga xam ne mooy choix am pour ñoom tamit ñu dévoilé wu. ba tey journal bile di euh, tribune euh, di wax rek ci responsable yoo xam ne pare nañ ngir défier ki nga xam ne moo di njiitu réew Macky Sall euh, ay responsable la nag yu nekk ci coalition boobee di Benno Bokk Yaakaar nga xam ne nag euh, gannaaw bu njiitu réew mi moom mi du nekk candidat ci présidentielle 2024 carte blanche la ñu ko jox ngir mu désigner ana kan mooy euh, nekk candidat bu coalition boobee ci présidentielle 2024 waaye nag am na ca biir coalition ba responsable yoo xam ne rek ñoom daal pare nañ ngir défier Macky Sall ci ab choix am Euh, quelques mois nag des rek ci présidentielles yooyu euh, ndax euh, ñu ngi ci juillet 2023 présidentielles ñu ngi koy xaar ci février 2024 yooyu nag nak na lu nar a seere Macky Sall mi nga xam ne nag mooy njiitu réew mi jamono ji mu ngi ci ngi jàkkaarloog équation politique bu métti métti ci li nga xam ne mooy Euh, ci reñam moom nag wara a désigner un candidat consensuel boo xam ne ñëpp dañu ca dëppoo pour la coalition présidentielle bi nga xam ne nag mu ngi def kim kàttanam ngir conserver wu au pouvoir euh, gannaaw bi nga xam ne nag euh, dee na décision xamle ko ak askanu ko Sénégal ne présidentielle 2024 du nekk candidat daje ak ñi nga xam ne ñoo di kàngam yu nekk ci partie boobee mu jiitee di alliance pour la république APR moom jiite bi mi ba ma ci noppee rek daal di amal akub daje waxtaan bu yaatu lool ak ñi nga xam ne. mooy euh, les euh, conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar bi mu jiite 2012 ba léegi ngir waxtaan ak ñoom nag ana naka la ñuy aborder présidence vingt 2024 rawatina nag tànneefu kan moo war a nekk seen ëpp euh, candidat waaye daat mbir ma équation bu métti métti la bu dee sax jox nañ ko carte blanche ngir nag mu désigner kon nekk candidat ba tur wa ñu koy xaar fileeg àjjuma gën jaa yàgg ndax ñu ngi war a dem ci li nga xam ne moo di naa yi en tout cas moom njiitu Macky Sall mu ngi woowaat ay ñooñam bu baax a baax ñu fàtte seen bopp eh, comme ni nga xam ne lu ko defee rek yoon ma leen ko mu présenté beneen yoon waaye mu sàmm kàddum ne duñu ko ca dégg def na ñaari mandat am pare na ca mu ne nag lépp luy soo am rek nañu fexe dëppoo ca ànd doon benn ndax nag suñu àndee rek gagné élection yi waaye nag suñu xàccee ki yow fi yow fi mooy euh, ñoom ñi lee perte nañu élection yooyale kon nag des xaarandi fii ak àjjuma na ban tànneef la ki li nga xam ne moo di njiitu Macky Sall di def ci candidat bu war a jiite coalition benn bokk yaakaar euh, ci présidentielle yu 2024 su fekkee ne euh, ca biir daal daanaka ña fa déclaré seenu candidature en tout cas consultation yi mu ngay wéy Eh, ci xibaar bokk na ci Me El Hadji mu fàttali candidature am ca ndaje boog na bokk yaakaar eh, ku mel ni Modou Diagne Fada et derrière eh, xam ne ne faa mu dem seetiwaat ay mbokkam baasam doora mën a jël li nga xam ne mooy décision waaye la ci ëpp daal carte blanche la ñu tegal njiitu Macky Sall ngir mu wéyal consultation yi ci potentiel candidat ya ngir nag mën a xool ana te na mu gënee naka lay désigner ki nga xam ne moo war a jiite le couleurs de la coalition Benno Bokk ci présidentielle yu mille 2024 mbokk yi loolu ñu koy xaar fii ak ñu xam ana kan moo war a jiite coalition boobee ci présidentielle yooyu di leen jox dig daje kon su ko defee léeg ak yeneen i xibaar waaye laata loole leen di like di ci seen chaîne DKR 221 activé seen cloche su ko defee lu ñu dugal ci video rek ngeen bokk ci ñu koy njëkk a jot 14 régions di Sénégal foo leen mënta nekk cant ak ngërëm leen di leen di leen jox dig daje léeg-léeg ak yeneen i xibaar jërë ngeen jëf. Música